جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا ملوك فيكون ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك سقيتني إلى الجنان أولياء غيبك يا من قاد لي خير حياة شكرتني عند جميع جندك يا خير جار قد مكست عندك يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله أحمد قديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما شفيم في بالتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي قدمته وصورا ثم صلاة الله والسلام أنا الذي مني لو أقلام سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن العاد والأذى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمعالي بتكرار هذا وقصدي قدمة تخر عين النبي بها كما تبر نويت من ظلام قدمة تجر مصفا بكفت في تماشر خرمت من رب البرايا قدمة لمن بجاهه كفاني صدمه أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر أشكره شكرا شكرا يجر سيدا بسرا ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزهزه غرورا فكنت نازما لذي المقدمة مسليا بها لا من خدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها الله بجاه المصطفى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 غالبة المراخب في عجل كاجل راخب قد صرفت للمراد قائلا ما سفاي بعيدا أو خيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خيلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وصلى الله تعالى على سيدنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وسبي وقديمي وسلم تسليما أيس مني الله عند جاولي إبليس استعليت بأولي نفع لخير الله قبل فندري بأهل بدر الأسود كدري نفع لخير الله فندكارو فندكارو كل أذن لي جرى علمني الرحمن في السفينة بأنني الخديم ذي المدينة برأني الله لدى كناكري من كل جالب إلى المناكري أذبان الله في كرم بسا قبل مبارسي واني خلبسا داني الرحيم عند دومي له بما أغنى عن التسوم يسر للمناه la daali bëru wali man xaadali ma xaabaan kulli wali li xaada ahla badrinil usuuda man zaxzaxal waasiya wal xasuuda yaquudu li xaysu akuunu lahu تفسير لا إله إلا الله فخلي غير الله فيما ينبى مساء قلبي وأهل الجنبى لله قد وصلت عند القلوى وسانني ما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البخور كفراياتي هي للمدهور علمني العليم عند الساقرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينهني عند البخور المغرقات داع لخمر أو دواع الفاسخات يسر للجميل عند المولكات يسر للجميل عند المولكات ما سانني عن جالب للمشركات هبات من كان عند الواسعات قاد لكلكل ردا والساتيات مد لي الانوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات سعادتي عند الاله الهي لزهرت عند عند ذوي الملاهي لم ينهني عند ذوي الخمور سوارد باخند أمور تهرني الله لدى أهل الكتاب من الشقاوة ومن كل عتاب أكرمني عند ذوي الإشراك من خادني إليه بالإدراك ناجيته بيا نصير يا ولي كفيتني إبليس عند جوالي شيخ إبراهيم فال باب المريدين لدل في جل بسام كان مسول جس كمل نمام cheikh ibrahima faal ba seeni maam bamba ko sempi def mu raw li dale fii jàll ba saam kenn mus la ku mel ne maam cheikh ibra faal cheikh ibra faal cheikh ibra faal ba seeni maam bamba ko sempi def mu raw maandul ci moom yow mi nitu xel te bul di ko jéema natte xel ki raw na bët te raw na xel xam-xam xamul li tax mu raw Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine maandul ci moom yow mi nitu xel te bul di ko jéem a natte xel kii raw na bët te raw na xel xam-xam xamul li tax mu raw Cheikh Ibrahima Fall yëg-yëg la buur yàlla koy dugal ci xol waa ji mu bëggal aljanna fegal ko mbugal yowmal xiyaam desu ko caw te nga ñaan buur yàlla mu leeram gu rëy ci sa billaahi jaa kon de nga raw xalaasa yow mi ko yëgul xalaasa yow mi ko yëgul moo tee ñaan buur yàlla mu dugal leeram gu rëy gi ci sa xol billahi jaakon de nga raw bu rëy sabab nga foñ ko ndax rëy ki tax iblis sa rëx jëhannama ma ngay bërëx moo tee nga teel a yow yow wattul kañaan wattul ca teel yow wattul kañaan ca teel yow mbaalu ko mooy des na la caw wulil sa xol bi ngalla yow dil sa xol bi nga yow te def ca lampo ndax nga raw bu juddu tee moo la gën maam yaay dameel ya jiite woon mu teg fa lépp wan nu gën teg nu ci yoon wi tax nu raw Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin jaay ko këriñ du puukare ngir maam yaa ñoo sancoon njare te jëf lu nuy tere ku yàlla waajal yow nga raw waa njare ñang gënu amoon leeram gu rëy ga woon fa seen deret rekk a taxoon ku nammatee ñàng na bu jàng tee ni moo la raw bu jàng tee ni raw bu jàng tee ni moo la raw mbooleem yi moo ci raw mu féete góor ñépp fa kaw moo tee ngaa yër jës boom ba yow lu jiitu muy gis ki ko moom fekkoon na lamp daj borom bam naa ko ma doola moom buy ji ko xàll yoonu raw Cheikh Ibrahima Fall baabul muridiin lu muy gis ki ko moom lu jiitu muy gis ki ko moom fekkoon na lampu daj boroom bam naa ko moom wuy ji ko yoonu raw kon lampu doonul woon ku réer ngir waaju réer du daji leer lampay ki xuus ci géej leer génnaale mbóot yi ne ci raw cheikh ibrahima faal baabul muridiin dadaa fanaane di taxaw ci der bu ñépp ne selaw daa julli fonkul woon nelaw kii mus jóg ci xencu raw bu daa taxaw ba jot fajar ruu yépp ak si newesar fa kanamam te na kofar fu dee si xaw ba mën raw mu naa leen garab bu la gi naa ni yéen du la karal te buur bi jox na ma ndigal ci xeñcu mbër may tax nu raw daa dina ñokket jóg ni wër a gën malayka naa ku njëkk gën mu njëkk jëf la tax nu gën booba la bis la lampu raw jaaraama cheikh ibrahima faal jaaraama cheikh ibrahima faal jaaraama cheikh ibrahima faal jaaraama cheikh ibrahima faal bi cheikhi bambataal leeral nga réew mi yaay kamaal yàlla na nga dolleyu birë àdduna ndax day bëgg a jeex am gaa baax yeey bëgg jeex am mbër yu ndaw yay bëgg a moo gaañ ñi naka pexe àdduna ndax day bëgg jeex àdduna ndax day bëgg jeex am gaa baax yeey bëgg jeex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 te jéem a wuy ji mooy pexe Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine Cheikh Ibrahima Fall woon ci àdduna ba ñëpp wuy si fàdduna nan a dëddu àdduna te jéem a ka woote woon ci àdduna ba ñëpp wuy si fàdduna nan jéem a dëddu àdduna te jéem wuy ji mooy pexe jaaraama Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin ka woote woon ci àdduna ba ñépp wuy si fàdduna nan jéem a dëddu àdduna te jéem wuy ji mooy pexe Cheikh Bamba dem na ca wam sachin Cheikh Ibra Fall dem ca tam sachin kon ñi fi des ku nuy dese yeen murit naka pexé Cheikh Bamba dem na ci wam sasim Cheikh Ibrahim Fall dem ci tam sasim kon ñi fi des ku nuy dese yeen murit naka pexé ab seet du dem ba dom di game. Cheikh Ibrahim Fall ay di game. ñoo rawi bokk rawi doom topp mi waaji leen mooy pexe ab seet morom yaay topp ma sëriñ murit yaay topp ma nan jéema walli seen poma te ba pomi ngeen di fexe Cheikh Ibrahima Fall gëm ga landina Cheikh Ibrahima Fall gëm ga landina Cheikh Ibrahima Fall gëm ga landina moo tax mu dëddu àdduna fekki na Bamba sotti na wàcc na àjjanay texe mas nay xibaar ab jébbaloo juróom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa ab murid di aw baraw pexe mëriit ba am ngërëm bari murid te dootu ree di mex-mexi mu daldi dem tay ba Dakar ngir dégg Bamba di fa xaar seen sëriñ tey ba Dakar ci njàng lay xame pexe mu tëdd guddi listi xaar ba mu xëyee ba tisbaar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar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 mu wax ko tegtal ya fa moom Cheikh Bamba wax ko la fa moom moo xam ne gis na ka ko moom mu daldi fam biiram joxe ma wax la bis ba ndax mu wóor di nitu fan ci weeru koor bésub di beer la mbir ma wóor Cheikh Ibrahima kër rëy pexe mu soobu far ba jiitu leen bamba ni kii xëpp na leen leeram bu rëy gi wër na leen fu mu toll xol bay nux nuxi wax na ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi lëmbiram ba kenn du mos ci baatinam lu dul ca ba nuy texe jaaraama Cheikh Ibrahima Fall jaaraama Cheikh Ibrahima Fall jaaraama Cheikh Ibrahima Fall jaaraama Cheikh Ibrahima Fall lamp bi Cheikhi Bamba leeral nga réew yaay kamal yàlla na nga doley birëx na la maam Cheikh Ibra la ilaha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 jaaraama maam Cheikh jaaraama maam Cheikh jaaraama maam Cheikh jaaraama maam Cheikh Ibra ci yàlla jàpp faal sol ko colba fez ba fees faal muy bëngi Cheikh Ibrahima fal jàpp guur sol ko colba fez ba fees faal muy bëngi faal li du neen li neen ci yàlla lii du neen faal yàlla laay ci yàlla bu doon neen faal cey bu doon neen faal cey bu doon neen faal du sore laa ilaaha illallah maam Cheikh Ibra faal laa ilaaha faal laa ilaaha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

ilaha illallah ca yàlla noo ngi ñaan faal dellu ñaan Cheikh Muntaxa Mbakke Cheikh Muntaxa Mbakke Cheikh Muntaxa Mbakke Cheikh Muntaxa Cheikh muntaxa Mbacké Cheikh Mountakha Cheikh Mountakha Mbacké yàgg fee ci yàlla noo ngi ñaan faal dellu ñaan Cheikh jëmma faal mi Cheikh jëmma faal Cheikh jëmma faal mi yàgg fee noo ngi ñaan faal dellu ñaan Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke yàlla dolli leeram di xarisu